ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd euh, rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samdi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Abdoul Maliki Bousso membre bu bureau exécutif bu forum civil chargé euh, des programme ci kuréel googule ñu fas yéene waxtaane importance rapport yu forum civil attribution marché yi euh, fii ci Sénégal problème de transparence et de gouvernance bu état Sénégal euh, dette bi nga xamante ni AIBD neen daf ko éponger avant euh, ñu yegg ci date bi hausse des prix au Sénégal problème yi am ca senelek cherté ndox meek wàllum ger ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko aborder ak suñu invité bile di Abdoul Maliki Bousso ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. di fay soxna si aussi. Mm-hmm. Euh, di kontaan rek euh, chaque fois fekkee bëgg waxtaan ak askan wi euh, à travers votre rajo Rewmi FM. Mm-hmm. di gën a kontaan rek chaque fois que ngeen sollicité ñu sawar nañ trop ci tontu ci àddu ci. voilà ñu lay remercier kon bu baax a baax ci disponibilité euh, boobule si saa boo xamante ni rek Rewmi FM soxla na la euh, waa forum civil euh, surtout yow Abdoul Maliki Bousso tey jii laaj bu njëkk bu ma lay laaj ci émission bi mooy lan mooy importance su forum civil. xam nga importance forum civil dina jafe trop man ma wax ko. Mhm. xam nga yenn mandarga yi rek laa war mun a joxe. ak sama organisation mooy lan ci lan la ñuy yëngatu lan mooy suñu mbëbët. Mhm. forum civil nag benn organisation société civile la. boo xamante ne lu ko soxal mooy euh, fexe ba li yittal citoyen yi euh, muy seen gouvernance su réew seen gouvernance su organisation yi seen gouvernance locale euh, li yittal citoyen yi gouvernance boobu reflété ko suñu organisation ñu ngi ko créé en 1993. Mhm. en 2000 nag mu bootu ci organisation bu ñuy wax Transparency International. Euh, Transparency International nag mu ngi yëngatu ci xeex ger ak luubal euh, ñun nag euh, comme Transparency dañuy def yore ay jumtukaay. Mhm. ñu ñuy nattee ger. mooy indice de perception de la corruption. ak yeneen baromètre de de la corruption. ak yeneen xeetu jumtukaay yoo xamante ne soit day natt ger bi soit day natt gouvernance bi soit day yombalal gouvernance bi comme lu mel na par exemple euh, suñu uti bi ñuy woowee certification citoyenne mm. loolu day may ay euh, banqaasu société civile ak ay ay ñeneeni nit yoo xamante ne dañ leen di gunge ñu liggéey collectivité territoriale yi pour xool fekkee collectivité territoriale yi ñu ngi wàccoog bëgg-bëgg askan bi leen fal loolu nag mooy euh, fekk degré et perception des citoyens de la gouvernance locale loolu yëpp euh, liggéeyu forum civil la leneen lii mooy li soxal réew mi mooy ce qui fait débat dans le pays mhm. euh, organisation bi da ci yëkkati kàddoom wax ci xam-xamam ñun nag ñu faral di wax sa xalaat déedéet lu ne dañ koy taataan jéem cee gëstu mhm. ginde ci génne ci ay firnde yu leer yoo xamante ne war nañ ko mun a séddoog askan wi à travers taskatu xibaar yi mel ni yéen. dëgg la mais yaa ngi wax ci biir wax forum civil dafa bokk ci kuréel gu ñuy wax transparency international transparency international mooy ñan ak fu ñu nekk exactement. transparency international la ma la ko waxee mooy euh, organisation internationale la ONG. maanaam am na fu ne ci àdduna bi. Mhm. waaw boo xamante ne Berlin mooy euh, dalukaayam. Mhm. Euh, dalukaayam nag en Afrique Nairobi la. dafa yore nag ay bànqaas yu bëri ci réew àddina yi. Hmm. muy ay section de Transparency International comme ay TI France Transparency International France TI Grande-Bretagne Sénégal nag ñun dañoo njëkk a juddu Transparency tudd forum civil ñoom nag ñu naw ni ñuy liggéeyee aw Sénégal ñu ne dañoo bëgg liggéey ak ñun ñu nekk seen bankaas donc nous nous rek ñu rek la ñu tudd forum civil section sénégalaise de transparence internationale yeneen réew yëpp. Mhm. Euh, section locale yi dañu tudd transparence internationale tegu ci réew mi. tegu ci ñun nag moom dañu am suñ tur. am suñu waaso. d'accord mais ñi liggéey forum civil euh, maanaam kan moo leen di fay bénévolat ngeen di def wala dañ leen di fay euh, salaire comme yeneen entreprise yeeg ñoom seen. waaw forum civil dafa am ñaari pàcc ñun association la ñu. Mhm. association bi nag euh, dafa am ay membres yoo xamante ni bu ñu toogee ci seen assemblée général dañuy fal seen conseil d' administration conseil bi teg bureau exécutif boo xamante ne moo koy liggéeyal bureau exécutif bi nag ki koy coordonné ñun ñu ngi koy tuddee coordonnateur général bi forum civil bureau exécutif bi euh, daanaka euh, fukki nit lañu Euh, conseil d'administration bi euh, quarante six départements yi dañ ko dañu fay représenté wu plus dix membres éminents du forum civil euh, ñoom ñooy nekk mu nekk cinquante six membres du bureau exécutif non du conseil d'administration ñoom ñooy kuréelu forum civil forum civil nag day liggéey ak yenn partenaire techniques et financiers yoo xamante ne dañuy def appel à proposition ñun tamit ñu postuler ci loolu ndagam programme yi nga xamante ne euh, bu ko forum gagné ala kulli aal nga jël personnel buy liggéey ci programme bi personnel boobu lay forum civil di fay à travers les programmes. personnel buy liggéey ci programme am nañ nag suñu personnel propre boo xamante ne association bi moo koy fay euh, loolu c'est le personnel di siège moom mooy personnel administratif bi la ca des nag moom mooy que ñun ñi ay bénévole lañu euh, kenn du ñu fay ñun ñoo. tànn euh, choisir ne dañuy liggéeyal askan wi à travers une organisation euh, qui est une association. Euh, boo gisee ma laaj la laaj bi souvent le problème mu financement boobu. day mm-hmm. ñëw jëm ci société civile bi. parfois sax ñu ne état bi am na koppar yoo xam ne chaque année daf koy jàppale société civile bi pour ñu mën a def seeni activité yow loolu est-ce que da nga dëggal waa walla déet. Euh, état bi dina yombalal yenn yi par exemple dina am loo xamante ne bailleurs yi dañ koy financer état yi jagleel ko société civile loo xamante ne par exemple lu ma Union européenne wala USAID moom la ñuy wax euh, financement government to government euh, yooyu généralement ay ay ay ay xeetu financement la yoo xamante day ñëw ci enveloppe général bu état moom ñu jagleel ko société civile société civile da ci liggéeyal ak ak ak état bi ci anam yoo xamante ne anam yu anam yu sell la la ca des nag mooy que parfois on a les mêmes bailleurs que l'État euh, pour yenn organisation la société civile mooy que euh, Union européenne day financer société civile euh, USAID de financer société civile noonu la ñu financer État parfois aussi ñu liggéey ak ay PNUD ak yenn organisation internationale yi ak yenn fondation yi nga xamante ne aussi dañuy dimbale loolu yëpp lu ko indi mooy que la gënoon gënoon nag mooy que ñu ràññee société civile bi nga xamante ne li muy liggéey njëriñalu askan wi la euh, intérêt public bi et financement public de ces organisations la comme financement public des partis politiques lu ñu war a mun a xalaat la mais yeggseeguñ ci loolu. kon daal mën nañu jàpp ni forum civil bokk na ci Euh, ñi nga xam ni dañuy bénéficier wu ak koppar yi jóge bitim réew souvent li ñu leen di tuumaal tubaab yi ñoo leen di euh, financer loolu kon dañ koy dëggal par rapport ak li nga ma expliqué. waaw loolu moom mënuñu weddi ne dañuy jot ay financement yu jóge bitim réew comme ay financement yoo xamante ne euh, ñi koy ñi koy ñi koy jagleel société civile am na luñ ci xaar am na luñ ci séntu ñun tamit Euh, dañoo war a mun a liggéeyal suñu réew am suñu cadre stratégique am am suñu jubluwaay am suñu ay principe euh, loo xamante ne dafa ménguwul ak suñu principe waruñu yootu yooyu xeetu financement hmm. yàlla xam na ne am na ay financement yoo xamante ne dañ koy dumooy am na ay financement yoo xamante ne aussi euh, fekkee ñun suñu bëgg-bëgg ak bëgg-bëgg bailleur bi ànd ci xam fi nga xamante ne am nañu mën a d'accord ci benn MOU mooy Euh, benn accord de partenariat wala benn contrat de travail euh, loolu euh, gisuñu ci benn problème li état comme des ONG ak associations sont de financés mën nañ financés par par l'étranger la la bonne mooy fekkee étranger bi lay financé wala extérieur bi lay financé lu mu jublu mooy xajamal nekkinu réew mi wala gàllankoor développement réew mi loolu moom Euh, kenn waru ko nangu muy politique muy société civile. léegi est-ce que yéen transparence bi ngeen di woote euh, bonne gouvernance transparence déjà sa foofu laay taxaw bi ngeen di woote. est-ce que am na déjà yéen ci seen biir yéen ñi woowee seen bopp société civile wala yéen ñi woowee seen bopp waa forum civil est-ce que transparence boobu am na est-ce que daawul doonul gën a leer ci bopp askan wi euh, ñu xam xaalis bi ñu leen di jox lan moo ko tax a jóg e, exactement est-ce que déjà yéen jiitu ngeen ci transparence boobule balaa ngeen koy euh, balaa ngeen koy laaj kii que ce soit. ñu ngi jéem xëy na motaluñu euh, société civile. souvent lu muy ŋaññi état euh, loolu da koy dal li ñuy wax lutte contre la corruption la corruption n'est pas uniquement d'ordre étatique mu ngi nekk aussi ci organisation euh, privée yi muy le secteur privé muy le secteur euh, de l'administration générale et de la sphère étatique muy la société civile dans son ensemble booy digle càngaay nag lu ci rafet ak lu ci jekk mooy nga nga commencé ci yow muy ñun société civile muy ñun forum civil ba léegi am na loo xamante ne xeetu jëf yooyu ak xeetu nekkin ak xeetu liggéey yoo xamante ne war nañ ko mun a améliorer euh, d'abord wàccook li ñu yoon sas mooy que suñu instance yi war a réunir régulièrement comme conformément au statut ko au parce que euh, suñu wareef la euh, loolu war nañu wàcce ak wàccoog loolu Euh, di di def suñu ay congrès wala suñu ay assemblée générale à date issue euh, yore euh, li nga xamante ne mooy charte yi ñuy tënk mooy statut yi ak suñu ay règlement intérieur ñun organe ñi nga xamante ne moom la ñu teg fii pour ñu jiitee kuréel yooyu ñu war a mun a def li nga xamante ne moom méngoo statut yi loolu nag honnêtement partout am na fu ci sookee am na lu ci sookee ñu ngi jéem nag Euh, dañoo bokk ci ay organisation yoo xamante ni. Mhm. Euh, dëgg-dëgg ñu ngi jéem a jubal ba fekkee même fekkee lépp mota motawul motagul euh, ñu ngi ci. ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. léegi forum civil ñu gis ne souvent da ngeen di génne ay rapport rapport yooyu forum civil di génne wala Transparency International si lan ngeen di sukkandiku étude yi day nekk at mu jot ñaari at yu jot wala lan naka lay demee exactement ba ngeen jékki-jékki rek gis nañ ni forum civil ñoom heure bu ñu génnee rapport ça fait un buum boom euh, ñëpp dañ si waxtaanee euh, si lan ngeen di repérer wu si euh, naka ngeen kay defee ba yegg si foofu la day nekk rapport boo xam ni jàngatu at bu jot la wala ñaari at yu jot. xam nga rapport yi ay xeetu rapport rek dañuy wax ne ay rapport forum civil mais forum civil euh, dina def rapport dina def étude étude mooy jàngat dañuy xool benn mbir boo xamante ne dafa taxaw ne jot war a soxal askan wi ñu war cee wut xam-xam ak ay leeral ñu ne nañ ci def ab jàng seetlu mooy étude wala recherche bi ñu mujjee def mooy euh, benn sur les dépenses fiscales xam nga euh, pour financer développement Euh, pour dimbale nit ji doole gi état du Sénégal souvent day euh, day day day day day renoncer à des ressources ay taxes ak ay impôts yoo xamante ne da koy renoncer par exemple pour faciliter exploitation minière bi wala par exemple pour wàññi yenn njëg yi mel na diwlin ak ceeb ak yeneen ak yeneen comme affaire Covid bi état bi dafa renoncer en un certain nombre de taxes pour yombalal importation bi. pour que euh, marché bi mun a approvisionné wu fekk du métti trop ci ci ci population yi euh, loolu euh, Covid bi ak guerre en Ukraine bi wane nañu xeetu dépense yooyu dañu jàngat am na ay xeetu dépense yoo xamante ne li leen firndeel mooy le sociale ñu gis aussi parfois état ci boppam en renonçant à certaines taxes ak yenn impôts yi ñama koy jagleel la ñu war a def en retour duñ ko def euh, état moo ci perte mu mel na euh, par exemple yenn exonération yi ñu xayma loolu euh, war ko tasaa naa ci fan yi di ñëw pour ñu ñi mën ci gistu indi ci ay piste de réforme li ñuy wax société civile nag rôle am toujours du du ŋàññi état rôle am mooy gën a xool fa sookee lan lañu ñu war a noddanti duut ca baaraam pour attirer attention que lii war nañ ko mën a jubbanti euh, loolu dina indi ngënal ci réew mi dina indi ngënal ci gouvernance su réew mi. ñu gis ni euh, wàllum xeex ger dafa soxal trop euh, forum civil lan moo ko waral. loolu mooy suñu ADN xam nga xam nga fekkee dañoo jagle. Hmm. ab ab ab alal wala ab ab koom dajale ko war ci liggéey réew mi. war cee tabax ay politique publique war cee taxawu askan wi te loolu war a jóge ci impôt askan wi war a jóge ci bor yi nga xamante ne ñu ngi ko def ci kaw askan wi parce que dañ ko teg ci loosu askan wi loolu yëpp pour jëmmal askan wi tabax réew mi war na laaj ñu xool naka lañ koy defee ba mu mucc ayib ba li nga xamante ne moom lañ ko jagleel mu tax ko jóg mu yegg si ca loola loolu la ñu xool ne ah, du ci Sénégal rek ni ci réew yu bëri Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne ñoo ŋànk yenn yorin yi ñu dénk leen am ndongam tànk wala ay sañ-sañ euh, du ñu wàccoog sañ-sañ ya na ma waree ñu ne nag euh, war nañu def nga xam ne lu li la jël réew lu ind jafe-jafe ci ab réew mooy yorinu sellul nañu fexe nag ba sellal yorinoo euh, gunge ci ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi muy acteurs étatiques yi muy acteurs soci privé yi ak ñëpp pour ci ñu ñu mun a am tabax seen bopp ci ay jikko yu sell jikko yu baax. Mhm. commencé ci ñun nag. comment ci société civile bi ak ñëpp ñu mun di doon loolu moo tax génnee lu mel ne IPC. Mhm. ci yëg-yëgu nit ñi lan mooy seen perception corruption ak guerre. Mhm. baromètre la corruption yan xeetu euh, jëflante ñooy indi guerre est-ce que impôt et domaine la ci foncier bi la wala est-ce que ci tali bi la alkaati ak transport bi wala euh, lan la ci njàngale mi ci santé bi donc secteur d' activité humaine yëpp ñu xool naka la ñuy saytoo yorin wa par rapport ak besoin population yi par rapport ak moye yi nga xamante ne état bi da koy def par rapport ak rendement ak impact yi ñuy am fan la ci sooxee ñu duut ci baaraam pour ñu mun ci indi ay soppariñ d' accord tey jii euh, dinañ bëgg a xam place bi nga hmm. xamante ni euh, Corruption am na ko ci société sénégalaise corruption euh, li muy jur maanaam inconvénients yi yi nga xam ni souvent daf koy am ci biir société am ko ci koom-koomam am ko tamit peut-être euh, ci développement wu réew ci doxalinu réew lan la euh, Abdou Maliki Bousso xam nga corruption dafa mel na cancer cancer moom bu commencé tipp fenn rek buñ ko arrêté wul wala contenir ko day lekk yeneen cellules yi conseil corruption dina rey euh, concurrence parce que fekk yow da nga ger nga gañee marché ba ka gerul dina ñàkk marché ba fekk xëy na moo la gën a am ay jumtukaay pour defar li nga xamante ne moom moo doon loolu la marché bi laaj corruption dina gën a sooxeel nit ñi doole gi euh, corruption dina ay annuler effortu état ci développement dina fexe ba yàq jikko yi ba ñu yaakaar ne sa euh, loo soxla ab du wareef ñu defal la ko wante da nga ko war a jënd wala da nga war a ger wala da war a neexal pour am ko yooyu yëpp day fragiliser citoyen bi day naxasal état day indi vulnérabilité lax état nag fu mu faible état fu mu nekkee absent rek euh, euh, zone de non droit dafay dugg wala li xew Mali. Mhm. xoolal li xew euh, Guinée. partout yi nga xamante ne état amul sañ-sañ. Euh, dawal yoon doxal yoon euh, joxe euh, image bu baax ci yorin ak sellal yorin wa dawal justice boo xamante ne dafa mucc ay état boobu day fragile bu fragiliser population yi dañ nekk en danger. te moo tax nag ñun ñu. Mm-hmm. ñu ne mm-hmm. pour noddanti yooyu. gunge état bi pour mu taxawal la nga xamante ne am na ay vulnérabilité seuil de vulnérabilité yëpp ñu ne fii la ñu mun ko corriger euh, mun a fexe ba assurer sécurité juridique sécurité euh, euh, euh du pays et sécurité des citoyens mais tey jii tamit ma lay laaj boobu corruption boobu naka lañ ko mën Euh, xeexee surtout ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne dañoo dem sax ba jàpp ni ger lu lu normal la di nga fekk nit si bërëbu liggéeykaayam ñu koy fay chaque mois ndax wax ndax service boobu mu la war a rendre mu dem sax ba jàpp ni yow boo ko neexalul ab 5000 euh, wala 10 000 sa liggéey du gaay sa sa liggéey du gaaw plutôt euh, sa këyit du gaaw ñu gis ko ci administration bi tey ji booy wut passeport sax faaw nga neexal muy ay yu élémentaire kaw tali bi gis nga ko euh, maanaam euh, ger boobu naka lañ ko mën a xeexee parce que dafa dem ba euh, bokk parce que nee nga yéen xeex guerre dafa bokk ci seen ADN ADN ADNu forum civil mais dama naan sax guerre dafa dem ba bokk ci ADN bu bu bi naka la dindee mbir moomu mbir moomu daal lu mu gën a njëkk laaj mooy ñetti mbir mooy sellal jëflante yi leeral mbir ya ba loo xamante lañ koy def daal buñ ko def ci entre ñaari moo ñu liggéey ci ñetti mbir waaw mooy promouvoir la transparence mm-hmm. leeral saytu sellal ba nga xamante ne la ñuy def dañ koy def ci anam yu leer anam yu mucc ci ayib mooy promotion de la transparence mm-hmm. deuxième axe bi mooy lutter contre l'impunité mooy que loo def am ci responsabilité am ci sañ-sañ mu def lu dul noonu bu nit ñi euh, waruñu la làq waruñu la laaxal sanction yi war ci yow dañ ko war a def ba mu mët sëkk ñëpp teg ci seen bët. comme par exemple tey jii euh, mm. ñu ngi wax ni parenthèse bu ndaw la par rapport rek si li nga lim ne impunité. Euh, tey jii ñu ngi gis ni dañ naan nañu gracier euh, euh, Karim Wade wala xalifa Sall te ñu ni mel ñu ngi leen doon tuumaal ni dañoo détourner ay alalu askan wi ay deniers publics kon loolu bokk na si li nga xamante ni forum civil daf koy bañ baal ko nii rek alal jën nul ainsi de suite bu doon yéen forum civil lan ngeen di recommander dafay indi alal ji ñu door ko baal wala xam nga xam nga euh, d' abord euh, muy Karim Wade muy euh, Khalifa Sall. Mm-hmm. wàccoo nañu ak seen daan. Mm-hmm. waaw la ca des mooy waaso bi wala yenn pénalité yenn amande yi ñu leen teg. Mm-hmm. loolu ku yoreel ab réew wala yoreel ab ab ab réew danga nga war a wàccoog loolu. bor àtte bor mooy fay. ñun loolu mooy suñu àtte Boor Fay àtte Boor Fay tant que yoon teggiwul leen li ñu leen teg mhm. ab bor la bu fa ne la ca des mooy mhm. euh, li ñuy wax euh, loi d'amnistie ak loi xam nga nag mhm. ab ab ab traité ay gént nit loolu organisation bu sérieuse waru ko def waaw euh, ñun xamuñu politiciens yi fekkee ci loolu lañ jublu wala jubluñu d'accord ah, na ñu ngi laab-laabee loolu dina mën Euh, rataxal euh, nekkin wi ci réew mi euh, lu baax la ci réew mi waaw loolu bu ci jotee forum civil dina toog ak certainement une voix plus autorisée que la mienne. Mhm. pour naan li mooy xalaat ci loola. Mhm. la ca des mooy que effectivement la la war a dundal impunité war nañ ko moytu. Mhm. waaw nit boo xamante bokk. ñu tuumaal la ay milliards nga dem ba mu neex la ñu ne dañ lay baal pour nga mën a bokk ci ay élections. léegi sénégalais yi di laaj ana xaalis boobu. Mhm. xam nga ba ba ba baal baal milliards yi. Euh, gisuma kuy am sañ-sañ bañ ay baal ay milliards. Mhm. parce que déjà décision de justice la. la ca da la ca das nag amnistie. Mhm. Euh, loo loo loo loo loolu loolu approche politique la. parce que parce que c'est c'est euh, assemblée nationale la moom moo ko war a wootee. pour indi amnistie loolu de day day day dindi peut-être yenn tuuma tuuma ak gàkk-gàkk yi nga xamante ne moo gàllankoor euh, doomi aadama boobu loolu yegsee guñ ca. Euh, mais di xaar ba fay tege ba lépp leer daal. Euh, waaw la la leer en ce moment je crois que le forum civil comme toutes les organisations dis di dira dira lan lan la ji xalaat e certainement position boobu elle sera rendue publique. waaye la ca bon xam nga citoyen bu nekk nag am nga sañ-sañ. Mhm. Euh, naan euh, lii gënaluma wala di def ay alerte. Mhm. effectivement fekkee lii dafa xajam wala lii euh, laaj na ma def alert en tant que citoyen y quelqu'un de la société civile qui a dit que ce serait bon. je crois que c'est le forum justiciable. Mm Birahim Seck aussi qui a qui a répondu en disant que loolu du lu xam nga loolu loolu loolu loolu loolu euh, c'est des citoyens qui se sont exprimés ou bien des organisations mais le forum moom personnellement n'a pas encore discuté de cette question pour prendre une position par rapport à ça parce que on n'a pas l'habitude euh, de travailler dans le virtuel on, on, part du concret et on le documente on pèse le pourquoi et le comment xam lii fan la jógee fan la soxee ko ñu xam ne bu ñuy wax ci débat public bi di si benn euh, position c'est une position boo xamante ne elle engage l'organisation et elle est, elle est discutée dans l'organisation waaw. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal Abdoul Malick Bousso euh, bokk ci forum civil Abdoul Malick euh, Bousso ñu laaj la ci beneen question d'actualité soxal loolu askanuwa waa Sénégal di yokkute gi nga xam ne pratiquement prix yëpp daf ko daal di yokk dañ doon wax sax dund gi yokku mais léegi nekkatul la ñuy dundee pratiquement dañu gis boo xam ne dafa laal pratiquement tous les domaines yéen waa forum civil am ngeen si jàngat waaw wala déet. waaw forum euh, génne gu ci euh, une position claire parce que aussi euh, il faut dire que euh, actualité électorale post électorale bi moom moo gàllankoor ñu bëri ñu waxtaanee ci mbir mi nga xamante ne moo soxal réew mi effectivement li nga wax mbir la boo xamante ne war nañ ko gëstu war nañ ci am indi ay laaj yu leer wut ci ay tontu aussi yu leer euh, Sénégal ak monde bi ak Afrique dañu nekk ci crise mhm. crise bi ña koy gën a yëg mooy euh, askan wi euh, ku nekk ci ñun xam nga euh, boo joxee sa waa kër la war a demee marché. Mhm. lañ lay indil ak lañ la doon indil wuute na. wuute na. Mhm. waaw li ci indi ñaar ba ñett la bu ci njëkk mooy situation international bi li ko caractériser mooy euh, guerre bi ak Covid bi indi na euh, jafe-jafe ci transport international ak transport maritime conteneur yeeg transport bi dafa gën a jafe assurance maritime bi yokku euh, production bi wàññeeku ba nga xamante ña gën a am ñooy dem wuti la ca des ba ñeneen ñi séddoo ko loolu problème la. Mhm. bon gouvernement bi wun na ci ay tontu euh, euh, en faisant désarmement tarifaire yombalal lu bëri euh, loolu war nañ ko xayma parce que mhm. ministre du commerce aussi war nañ ko interpeller ci yenn mhm. laaj ko lan la gouvernement bi def ca fànq inflation bi fan la ci toll lan moo ci gàllankoor pour ñun ñëpp ñu wut ci ay saafara yu mot. Hmm. beneen bi mooy li nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi Sénégal nag dafa am nu mu aadawoo réew mi dafa nekk réew courtier ak spéculateur. Hmm. waaw ñu dékkee yokk rek wala jafe-jafe am na ku nekk jaay li la neex. Hmm. la indi nag mooy que réponse imparfaite de l'État. nguur gi moo indiwul ay tontu yu ci war ministre du commerce dafa war a jël ay motukaayam yu mot yu dëgër yoo xamante ne dañuy contrôler effectivement marché bi li nga xamante ne mooy le prix administrés loolu dafa laaj loo xamante ne euh, ab liggéey la laaj te aussi mu waxtaan ak ñi nga xamante ne fonctionnaires yi nga xamante ne ñoom la euh, ñoom la ilif te ñu ci bëri actuellement nekk dans des situation de euh, de tension avec leur autorité de tutel ci affaire u je crois que bu ñu leen bu ñu leen kiyee dina indi dina indi saafara. Mhm. ci loolu. Mhm. voilà beneen ponk tamit bu am euh, solo Abdou Malick Bousso. Euh, gis nañ euh, DG bu aéroport international Blaise Diagne def déclaration euh, ne bor bi nga xam ni ay AIBD waroon na ko fay fii ak quelques années jeex na maanaam aéroport bi Sénégal moomal na ko boppam yéen bi mu defee déclaration bu ni mel peut-être coow li bari na ci benn côté est-ce que càmbar ngeen xam ni est-ce que Doudou Ka la mu wax lu wér la lu wóor la am na fu mu ko teg wala ab waxu politicien kese la. Euh, xam nga càmbar euh, mi moom euh, ñu ngi ci. Mhm. xam nga lu mel nii il faut nga dem ci convention de financement bi. Mhm. xool lan moo ci ne saytu ko. Mhm. xam aussi lan moo doon engagement contractuel yi. lan lañ ci am ak lan lañ ci ñàkk ak aussi projet d'investissement connexe yi nga xamante ne naam pare nañu fay peut-être boru aéroport bi. Mm-hmm. mais am na yeneen programme yoo xamante ni ils sont en cours. Mm-hmm. te loolu tamit laaj na ay ressources ressources yi fan lañ koy jëlee est-ce que ci euh, mécanisme de finance bi financé aéroport la ñuy continuer wala dañuy yeneen xeetu financement loolu dafa laaj ay gëstu yoo xamante ne forum ci loolu la ne. Mm-hmm. Euh, mënuma ci xuus lu yàgg. mais lu ci am am am mooy que xaalis bi tabax euh, aéroport bi ay ressources publiques la. gouvernance aéroport bi dafa laaj. ñu adossé wu ci ay standard de gouvernance yoo xamante ne dafa mucc ay ba lañ ci investir ak liñ cay séntu ñu mun ko am xam ngeen aéroport bi bëri noonu na coow euh, coow li euh, mooy que bi ko commencé ak nu mu yéexee mhm. euh, am na ay gàllankoor yu rëy yu rëy yu rëy du cas buy buy waxtaan ci fay nañu bor yi dafa war a njëkk a xool def évaluation rëq-rëq yeeg lënt lënt yeeg la gàllankoor aéroport bi ba mu yegsi woon ba mu yegsi fii ak partager ak nit ñi aussi. Hmm. Euh, yan projet la amal pour aéroport bi ak yeneen aéroport parce que gouvernement baa ngi ci benn politique de réhabilitation des aéroports secondaires. Hmm. et de ramener l' de Saint-Louis à un stand d'en faire un aéroport international comme celui de de de de euh, donc euh, de Cap du yooyu yëpp euh, dafa laaj euh, puisque ay ressources publiques la ñu leeral mbir yooyu euh, ces am ces effets d'annonce là ak ay tweets yu mel noonu généralement dina junj dara mais c'est pas tellement informatif et ñun forum civil nag du ñu basé wu ci loolu pour mun a joxe une opinion boo xamante ne documenté wuñ ko waxtaanuñ ci été wuñ ko ba am ci am ci xam-xam bu wóor mun a am nag sañ-sañ communiquer ci loolu. voilà beneen euh, ponk tamit am euh, solo di problème ya am ca Senelec euh, bi menacé na dina amal ab blackout parce que ay société yu bare bari rawatina ay société nationale dañ ko amel ay facture yoo xam ni fayuñ ko ko yéen waa forum civil lan ngeen ci xalaat waaw nga lu lay wax rek mooy mooy jox la ay ay ay ay principe dégager ay principe mais sur le plan sectoriel bu ci nee euh, dafa ñu ci benn étude de cas pour ne lii moo ci war euh, les problèmes de principe mooy que ku at li ñu waxoon sànq rek atte bor fay Senelec ku ko yoreel muy état muy hôpital muy keneen muy keneen ils ne sont pas là ils font du social war nañu leen mun a fay seen activité waaw euh, li ñu liggéey bu ñu fàtte ne Senelec day jënd ci ay producteurs privés de l'électricité la plupart du temps. Hmm. mu mu jaay ko nit toog soixante jours soog la facture nga fay déjà bor yaa ngi foofu ala kulli aal bu ñu bëggee Senelec motal li muy def il faut ñu dimbale ko à recouvrer ses et aussi mettre ko dans des conditions yoo xamante ne dina assurer le service public d'accès à l'électricité parce que loolu moo amal solo citoyens yi euh, Euh, mun nañu xool gouvernance intérieure euh, Sénélec lan moo ci sooxee hmm. euh, plan plan de développement infrastructurel le projet actuellement en cours avec la Banque mondiale de restructuration de la Sénélec lan la ci gouvernement bi nar lan la fan lañ ci toll loolu moo war a am objet discussion actuellement ñu xam que effectivement Sénégal dafa jëm ci am gaz dafa war a reconfigurer outil de production d' électricité bi avec le gaz to power dafa am xeetu énergie yoo xamante ne bees gis nga sax euh, naam euh, ils ont changé un peu euh, le code des marché publics euh, pour extraire les yenn yi ci loolu dafa laaj gouvernement bi gën a expliquer sa posture et sa position par rapport à ces réformes là qui sont en train de s'annoncer euh, lu bu loolu day indi toujours ay amalgame ak lënt-lënt euh, loo lu leerul day indi jiixi loolu moo tax communiquer il faut bien communiquer et communiquer les bonnes informations parce que les gens peuvent discuter mais ils ne peuvent discuter qu'à partir am ay informations yu fiables yu yu valide yu hmm. validées yoo xamante ne dana mën a fonder une opinion la Sénélec doit recouvrer effectivement ce qu'elle doit parce que sinon elle va aller vers des difficultés et c'est le pays qui aura des difficultés beneen ponk sa euh, revient souvent des problèmes bi ñuy am ci inondation yi ñu gis ni état wu Sénégal daf ci dugal milliards yu bari ci li ñuy wax officiellement mais gis nga sa saa su tawee rek benn euh, taw wala ñaar on a toutes les difficultés du monde est-ce que forum civil gëstu ngeen euh, xaalis bi nga xam ne état wu Sénégal nee na daf ko def ci wàllum assainissement ak xeex inondation est-ce que def na ko ci waaw wala déet. li nga wax am na solo. parce que quand même euh, affaire inondation mënuñu chaque année ñu ciy def alal bu takku bu mel ni et toujours euh, at bu ci toppaat bu taw bi ñëwee euh, bu dul ñi ñeneen nekkaat ci yeneen jafe-jafe je crois que approche bi ñaar ñett la d'abord euh, évaluer l'effort de l'État xool effectivement yan infrastructure yi ñu def yana qui ont été fait ban impact la am ci phénomène bi naka la ñuy xayma la ca dem ak lan la saafara je crois évaluation enveloppe budgétaire bi nga xamante ne dix ans de lutte contre les inondations def nañ ko jot nañu xayma ko et woo nañ ci état pour mu def loolu ñun forum civil deuxième bi mooy beneen aspect bi nga xamante ne citoyens yi la ñoxal ak état bi mooy type d'habitat bi ñu am au Sénégal ak propension nit ñi ñëpp lënkaloo Dakar di Dakar ab réew tundal ak xur mag ñu njëkk yee dañ doon dëkk ci tund wa di béy ci xur wi léegi nag ñëpp dañoo ñëw dëkk ci xur wi Dakar amatul fu mu béy te xur wi ku fa dëkk ndox ma fekk la fa. Mhm. wax ji yëpp loolu la. Mhm. mun nañu dugal budget Sénégal yëpp ci ndox ma mais tant que nit ñi ñu leen bàyyi ñu dugg ci xur yi dafa dafa dëkk ouvrage d'assainissement mënul leen fa génne il faut ñu ñu ti dëkk il est temps que ñu def évaluation type d'habitat bi. def évaluation mm, euh, citoyen yi ak spéculation foncière bi am ci réew mi il y a une véritable mafia foncière qui met le pays en danger ñëw dëkkaloo xottil ni terrain boo xaman kenn war fo dëkk tabax fa loolu war nañ ko saytu e état def ci am part de responsabilité parce que kan mooy signer autorisation de construire descos ñu war ko dooleel ba nga xamante ne. Hmm. surveillance occupation des sols bi mu ñel ko ba nga xamante ne ku def ci suuf si loolu noonu yoon dal sa kaw dafa jot parce que inondation yi la ci gën a bëri mooy que ndox mi ak nit ñi mënuñu dëkk ba ilaa yow mi diin kenn dafa war a tuxu wala ñu génne ndox ma mu dem géej wala nit ñi jóge fu ñu ne waruñu fa ne bàyyi fa ndox ma. voilà beneen ponk bu ñuy euh, jeexalee Abdoul Maliki Bousso di modification du code euh, des marchés ñu gis ni euh, njiitu réew mi ci loolu la nekk déjà yéen modification code du du des marchés naka nga ko daal di gisee est-ce que yow baax na wala baaxul. on est en train man de personnellement je Euh, ak euh, au niveau du forum civil aussi euh, xam nga marché public moom ci suñu bagage su forum la bokk ñu ngi kiy séntu di ci liggéey lu ci am solo am solo mooy affaire marché public ñetti ponk la laaj mooy transparence concurrence ak efficience et efficacité de la dépense publique ñett yooyu war nañ ko mën a xayma ci marché public mu war a soxal askan yu war a soxal ñëpp ñi ci yëngatu gouvernement bi génnee na benn décret bu ñoddi euh, yenn société yi ci périmètre marché public yi euh, am na nu mu ko motiver euh, dafa laaj nag nit ñi dem ci motivation yi kool lan moo ci méngoo la ñuy wax est-ce que taxaw na wala taxawul est-ce que li leen génnee dina menacer li ma la wax transparence bi efficacité ak efficience dépense publique bi et la, euh, la la mise en concurrence mooy euh, euh, ordonnancement marché yi bu ko fekkee da koy def affaiblissement la fekkee defu ko la ko la la ma war a mooy que marché public boo ci génnee nit fekkee am na lu ko ci gàllankoor war nga ko mën a tënk feneen fa koy tënkee mooy ci manuel de procédure manuel de procédure yi nga xamante ne gouvernement mi def na ko pour chacune de ces entreprises ciblées Euh, na nga war a yëngatoo naka nga war a lalee sa jëflanteeg ñeneen ñi est-ce que tënk yooyu mun nañu permettre transparence concurrence bi ak efficacité efficience bi ñu séntu ci code des marchés publics bi loolu nag dafa laaj gëstu te ci loolu la ñu ne euh, ñun au niveau du forum civil. yéen euh, gëstu loolu. waaw ñuy gëstu loolu. voilà mais lan la ñu mën a dégg ci marché public exactement bu ñu sa amee mu am tuuti leeral ak marché gré à bi nga xam ni yéen forum civil d' accord leen si. Euh, xam nga marché gré à gré ñun ñun forum civil bañu ñu ko de. Euh, marché parce que code code des marchés publics ci boppam da ko da ko permettre. moom waaw. mais lu ñu bañ mooy que euh, gré à bi ñu multiplier ko ba mu jéggi dayoo. Mm-hmm. lu ñu bañ. mooy que mm-hmm. mooy que mu nekk une solution de facilité et de raccourci. parce que gré à gré euh, mënul indi ko appel à concurrence gré à am na lu ko lal am na lu ko encadré mais bu ñu demee ba nga xamante ne day jéggi dayoo euh, day bëri day naxasal la ñu bëggoon en terme de transparence en terme de de concurrence en terme d' efficacité et d' efficience la waxoon loolu moo tax gré à gré dafa war a néew. ñu war ko encadrer war ko contrôler lamu laaj mooy effectivement de de foo xamante ne dafa am intérêt stratégique majeur loolu mun nañ comprendre gré à gré wala marché fermé mais fekkee nag dafa am loo xamante ne souvent euh, lu ñuy laaj ay procédure express yu ñuy laaj dañuy sàggan ba mu yegg si euh, euh, fu mu warut a yegg si ñu naan nag nañ jël ay mesures d'urgence te loolu dafa lal caacaay nit dafa war a euh, jël ay matukaayam ba nga xamante ne booy dérouler say marché nga encadré ko dans le temps ba nga xamante ne yéen du la dal euh, ba nga xamante ne aussi nga mun a saytu marché bi ba ngëneel laaj yi am parce que efficacité ak efficience ngay ngay ngay mm-hmm. loolu moo tax marché public euh, dafa am solo ci réew encadrement commande publique dafa am solo ci réew war dimbale koom bi mu développé mais warul aussi gàllankoor développement koomu réew mi voilà euh, Abdoul Maliki Bousso waxtu bi dab nañu ma bàyyi la nga tàggatoog auditeur u Rewmi FM euh, di la nuyu rek di la sant Ndeye Ndeye Marème euh, Ndeye Kumba kontaan Kumba <laughs> Ndeye mm. Mm. Euh, di kontaan rek toujours di jëflanteeg waxtaan ak seen seen rajo euh, loolu lu soxal askan bi dama gis ne euh, li intéressé askan bi euh, les les questions d'intérêt national dafa soxal seen rajo. Mm-hmm. te loolu lu soxal askan wi nag fekk soxal na la boo ma ci woowee dem ci sawar. jërëjëf Abdoul Malick Bousso ñu koy remercier euh, bu baax baax mu nekk membre bu bureau exécutif du forum civil euh, chargé de programmes kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen tem ak beneen invité jaa jëf.